salaamaaleykum àdduna wërngal këpp ñëpp nuyu na leen ziar leen ñaanal leen sàkk bu baax ngeen di ñaanal di am bët suñu mbégte jëm seen nopp suñu bànneexu làmmiñ seen taaxirlu war a suñu farlu tegtal du tàyyi mukk du bàyyi mukk ci seeti leen ko xam ne que njëriñ leen ci seen tudd ñaan yàlla ñu bokk gis ko ci tegtal indi koo xam ne que min ngeen ko lool ci tegtal ñu min ko lool ci tegtal du leen doyal ci moom duñ doyal ci moom dafay dem ba ay di toppandoo ni mu waxee ndax lan ab émission xalif général de Mouride sax mën na ko seetaan xalif général de Tidiane mën na ko seetaan xalif général de Niassène mën na ko seetaan ku ne mën na ko seetaan ndax waxewutu fit xam-xam lay waxee ak dal ak tey kooko di mu Serigne Modou Kara Lo Serigne Modou Kara Lo nga xam ne bu dul xam-xamu ñaan faj sax bu tegee fee xam-xamu diine mokkal alxuraan euh, naa fi la di def tafsir doon koo xam ne que ci lu baax la yëngatu te nag connecté wu xam li xew ci àddina bi. du maanaam du jaahil du ngaaka ndax tamit xam na actualité bi yëpp lu muy dund bu baax a baax a baax a baax doon koo xam ne que bu ne laa nii la boo toogee rek bu déwén lam la waxoon noonu lay demee du soppeeku ndax du waxew fi daal sëñ Modou Kara Lo borom Kër Massar nga xam ne ku dugg Kër Massar di seetu sëriñ moom lay set sëñ Modou Kara Lo borom dëkk Touba du wax borom Touba mais dafa bëgg borom Touba ca Madiana Ciss yaatu na fa la dëkk euh, dina dem Madiana Ciss nag xool fa. këram gi nga xam ne que sanc na ko bu yàggul fan yi sax defi fa émission ndax li war ne résultat rek moo am solo da nga yokk am na sëriñ su ma doon invité gisatuma leen déggatuma leen dem nañ ci yeneen chaîne yeneen rajo yeneen télé te tréewu wàcc na loolu yëpp ñàkk def résultat ñàkk série moo koy waral kon ku def lu baax rek da jëm kanam ku def lu baax da ngay wàcc moo tax am na pour ma tegati leen bët dina jafe ndax lan euh, ñun ñam na leen daal ba xam ne leen sax des na ñu seeti ñeneen sëñ Modou yaa ngi ci Tektal TV sa télé émission Tektal sa émission ma di la jël nga ne ma di nga fi bari tànk te yaa ngi fi bari tànk te wax dëgg yàlla kenn mënumaa kalaam ak yow te ku ma bëggoon a kalaam ak yow boo waxee mu wax rek mu jéggul lay mujjee ndax euh, sa liggéey ni nga koo fonke ak yu mel noonu boo waree yor kurus tamit yor ko euh, man daal naw naa sa liggéey ndax lan ndam yi jóge ci nit yi ma di la ko delloowaat ak yi ma ne tekk bañ laa wax nga xam ne xam naa ma xam yooyu yu dul jeex la ci ñu jaar ci man bu baax a baax looy nuyu àdduna war nga këpp bi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 di nuyu waa biir réew mi di nuyu waa biti réew di nuyu ñi nga xam ne ñooy bàyyi xel Tektal TV ak fu ñu mën a nekk kenn ku ci nekk ñu ngi lay nuyu di la ñaanal jàmm di ñaanal suñu xalifa généraux yi suñu borom may leen fan wu gudd waa ndu ko wér jiital Cheikh Mahamadul Muntaqa ibnu Cheikh Mahamadul basiir waaye ñaanal mboolem xulafaaw yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi rek yal na yàlla sàmm leen te aar leen te yàlla def ñu euh, yanu barkeb seen maam ya ak seen baay yi nga xam ne ñoom la ñu fa ñu toog di jégalu ñëpp sëñ Cheikh di la wax bisimilah ci émission bi incha allah. Euh, jërëjëf euh, sëñ Modou Kara Lo koo xam ne que dañuy sawar trop ci invité la sawar trop ci waxtaan ak yow ndax njëriñ bi nga xam ne que dinga ko waxee ba ku ne mën a seetaan sa émission ñu nuyu. Euh, sëñ Amadou Rafaay Mbacke. Hmm. ibnu sëñ koy siyaar bu hmm. hmm. waaw maa ngi koy nuyu bu baax Mbacke Balla. di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko fan wu gudd. wu ànd ak sëñ Amadou Rafaay Mbacke. di nit ku baax koo xam ne. Euh, suñu jëmm ju xeebu ji wax dëgg yàlla dafa am fu mu ñu teg. te moom jëmm la joo xam ne mooy ni ko waxoon ci benn émission hmm. moom àndut ak kenn ah, fa dëgg jëm rek la àndal maanaam bañul kenn fa caaxaan nekk nekku fa ñu ngi koy ñaana suñu borom may ko fanu gudd wante ku wér mën a sagal nag nitam la ku mën a sagal ab taalibe la ah. waaye ku teg tànkam ci yoon wi la nga xam ne toujours rek nit ku ma fa yóbbu mu dem ziyaare ko sax hmm. bu fa jógee maanaam day yeesaat taq kon nag ñu ngi koy ñaana yàlla may ko fanu gudd hmm. suñu borom may ko ak wér ba mu àggale li nga xam ne bëgg na koo liggéey lislaam jaare ko ci li nga xam ne maamam moo ko xàlloon Mbacke Balla jërëjëf. macha allah sëñ Amadou Rafaay Mbacke yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér. Mm-hmm. ibnu mm-hmm. euh, euh, ku dulub jullit. ku mm-hmm. dulub murit koo man di doon. Euh, defe nga ne bu lu baax rek nga bëgg. di ko bëgg. ndax lu baax la bëgg. te am ci fit mu jaral ko. ku ko ci mere ku ko ci gërëm la yamale. kon kooku moom dëgg yàlla ñi a critiquer sax dañ koy bëgg. Mhm. ndax xam-xamam te jàngaleem du doon lu metti loo xam ne ko ngay wëri di sonn. Mhm. bu waxee bu rombee jàll di nga xam ne kii du perte temps ci wax la. pour mhm. nga xam. Euh, léegi nag euh, yàlla ko yàlla daal. amiin ak i magam. sëñ Abou Mbacke xalif sëñ Fallou yàgg fi loolu. amiin amiin sëñ Abdou Karim Mbacke. amiin yëpp yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ Maam yàgg fi loolu te ànd ko wér sëñ Maam Mbàkke moom sëñ Fallou jóge fii lu tolloog presque ñetti at. Mhm. yàlla na ko yàlla dolli. amiin amiin leer ak bu baax a baax. amiin njabootu sëñ Fallou njabootu lislaam. képp ko bëgg lu baax daal. Euh, kon euh, sëñ Modou Kara balaa may sori. Mhm. Mhm. damay wax ne léegi fi nga nekk ci Touba fan la bu dee da faral di nekk Touba Madiana Ciss di dafa rëy de. waaw léegi maa ngi Madiana Ciss. Euh, ku xamoon Madiana rek parce que man Madiana 3 laa newoon ci ci wetu marché bi. waaw waaye léegi nag maa ngi Madiana foofu laa toxu. sama kër foofu maanaam ku xamoon Madiana 3 rek mm-hmm. boo ñëwee ci fi ñuy wax pàkk donge Serigne Saliou yi mm-hmm. muy route bi nga xam ne moo jëm kër Serigne Sidil Muxtaar mm-hmm. boo jotee tali bi rek première dóor daan rek boo xoolee à gauche da ngay jàkkaarloo kër gi bu la neexee sax boo taxawee ci tali bi rek mën ngaa woote bu fekkee ku jógee station Kër Sidi Muxtaar bi bu ñëwee ba ci première tournant rek. Mhm. bu tourné rek taxaw ci doo daan bu wootee incha allah dañ koy gis bu soobee suñu borom. foofu la ñu nekk bu ñu nekkee Touba incha allah. Ah. bu dee Kër Massar moom ñoo ngi fi ñuy wax arrêt Jamil Karo. moom itam ci wetu Osan Kër Massar bi rek ku xamul Jamil Karo te xam Osan Kër Massar bi rek. Mhm. boo ñëwee ba ci Osan bi tamit boo wootee incha allah rabbi ñu teg la ci yoon ba nga as ci kër mhm. ah. a déplacé wu nga jot ko ba pare dafay gën am na whatsapp 77 750 22 60 77 750 22 60 beneen bi 76 396 53 81. 76 396 53 81 sëñ Moodu Kara Lo nekk ci Kër Massar ak euh, Touba Madiana nga dis ko sa soxla lu mu ci mën mu def ko léegi ñu bàyyi yàlla mi xam tëliwu dara tamal na lépp numéro yaa ngi noonu ci écran bi bind bi dijj na. te leer. Euh, sëñ Modou Kara Lo euh, li ñu ñëw ak yow. boo xam ne que li ma ëpp ci ñu lay gërëm. foofu lay tàmbalee. muy wàllum seet. nga xam na que tey ñeme naa nit ku wër seet ba ne gisul ku ko doy. mais yow bu duggee ci yow ah Cheikh kii de lii ma wax ci set mm-hmm. li ma wax.

ci fànn boobu fànn yi ñu koy sant bari na waaye rawatina ci fànn bii fànn la boo xam ne suñu borom moo ñu ci may toujours dañuy wax loolu dañu cee may waaw du ak neen dañu mm-hmm. ndax euh, bari na loo xam ne sax dañuy tëdd di gis ko te mu doon loo xam ne xaqiiqa la mm-hmm. damaa jëleel nag nit ki ñëw ñu xam turam mm-hmm. xam turu yaayam loolu yàgg naa di ko wax fii ne nit ki toujours bu ñu xasee xam turam mën nañoo xam ci moom lu ñu bëgg xam bu ñu xamee turu yaayam mën nañoo xam ci moom lu ñu bëgg xam. bu ñu xamul ci moom lenn it am na lu ñu suñu boroom may ndax loolu dañ ko liggéey ci wàllu kurus. ndax kurus dafa bokk suñu mbir danañ ci ñëw ci kanam. Mm-hmm. bu dee wàllu seet nag daa doon loo xam ne. Mm-hmm. kenn du ko làmbatu. Mm-hmm. maanaam seet dëgg kenn du ko làmb ndax toujours li may wax ne. nit ki lay diglu moom dafa am lu mu xam ci boppam. yow mi mën a seet bu dee da ngaa mën a seet am na loo xam ci moom. bu mënoo seet nag xamoo ci moom dara. yàlla mi leen ñetteel it am lu mu xam ci yéen ñaar ñëpp. Mm. waaye nag dafa am ay sart yu muy jaar am na seet boo xam ne dañ koy jàng. Mm. man ko kooku nag dafa am fu muy yem. am na niveau boo xam ne mënu fa àgg. da ngay gis kuy seet sëriñ buy seet. Mm-hmm. mais am na niveau yoo xam ne ci wàllu seet mënu fa àgg. mënu koo gis moom. Mm. parce que foofu la njàngam yem. Mm-hmm. am koo xam ne am na loo xam ne daf ko donn mm-hmm. am koo xam ne nag lenn dafa liggéey ci wàllu kurus ci jaamu yàlla ba suñu borom wan ko ko. ñun ñett yëpp def nañ ko. benn mooy jàng nañ ko. ci fànn yu bëree bëri muy xam-xam li ñu tuddee xam-xamu ramlu mhm. ci wàllu seet jàng nañ ko mhm. bu dee ci wàllu kurus noonu bu dee ci wàllu téere noonu bu dee ci wàllu ndox noonu bu dee ci wàllu suuf noonu mhm. jàng nañ ko ci beneen ba mooy donn nañ ko tamit ndax dafa nekk ci suñu deret ñu donn ko ci famille kër baay donn ko ci famille kër yaay mu nekk ci suñu deret waaye doyloowuñ loolu it nag ginnaaw bu ñëwee lu ci nekk suñ borom ginnaaw bu defaloon doomu aadama bi sax xéewal ba gi ñëw ci moom du ko jël di ko dugal ci gémmiñam mm. waaye daf koy wan naka la ko war a utiliser mm. ba man koo jariñ mm. léegi nag loolu moo tax bi ñu xamee loolu bi ñu ñëwee tamit yoon wi ñu jaar ci mm-hmm. bi ñu ci jaaree di liggéey ci wàllu course ba lu baree baree bari ci wàllu seet ñu man ko mm-hmm. ñu ko doon waxee tey lañ ko gën a wax ragaluñu xalifa général woo ñu seet looñu mm-hmm. ñu wax ko loo xam ne moom mi toog dana xam ne lii dëgg la ragaluñu ab président ragaluñu commissaire ragaluñu commandant ragaluñu kenn li ñuy wax xam nañ ko maanaam du lu ñu làmbatu moo tax toujours dafay am ay preuve yoo xam ne dañu dellusiwaat ci yow am yoo xam ne dañuy dellusiwaat ci ci man toujours nag li may wax mooy man yow mi ñëw di seetlu du ma xool li la neex mbaa li la yi maanaam am na kook bu ñëwee di seetlu moom dafa bëgg dégg li ko neex mm. benn moom bu déggul li ko neex sax mën na jàpp ne yow mënoo seet waaw am koo xam ne daa jàpp ne moom bu déggee li ko neex rek yow mën ngaa seet man du ma benn ci ñaar yooyu ban laa mooy liñ la génne ci sa ay mbir mm. moo tax li may amaat ci ay retour yoo xam dañuy ñëw ne ma nàngam ak nàngam pour pourtant waxoon naa la ko ci biir seet bi mm. parce que bu la seetal dafay génne ci bu la génnee la wàllu sarax génneel la ñaan dafay wane ne ñaar yooyu mooy doxal sa mbiir bu ci nekk nga dem defali ko sa bopp wala ñu defal la ko beneen ba mooy léeg-léeg mu génne nit sarax kese mm. léeg mu génneel nit ñaan te du ko sarax mm. moo tax waaye loolu rarement la mm. léeg nag ñu génnee nit sax mu ne lu tax génne woo sarax bi ma ne ko dafay génnul ci yow mais bu ñu xasee ba lay génneel wàllu sarax ci biir wàllu seet bi sarax dinañ ci ñëw ci kanam Euh, sarax boobu li muy euh, wane ci biir seet bi mhm. mooy benn sa rawxaan mën na la ko sant mhm. wa illaa sa sant la ko mhm. benn nag yooyu dana la dimbale ci lu bare bari waaye seet moom ñu ngi ciy sant yàlla bu baax suñu borom moom may nañ ci loo xam ne xam nañ na may nañu ko ñi ngi ciy jëflantee tamit ñoom it nangu nañ loolu Mm. kon nag loolu li ci des mooy sant suñu borom incha mm. allahu rabbi allah sëñ Modou Kara Lo dégg ngeen ko kon ku bëgg seetkat mm. euh, jërul nag nga koy seetloo pare wax xol li war a xew ba pare dañ ko jox déglu ko mm-hmm. moom ne nga ko jox sa tur sa tur yaay mm-hmm. booy xel ñaar mën na seet ak seet am nga mm-hmm. tubaab boo dëkkal bi xam nga turam xam nga tur yaay jël ko jox ko ne ko seetal li ñu waxaat ko tubaab bi liñ ci liñ pardon liñ ci fay doonul lu bari noonu parce que lan la moom dafa ñëwoon seet bi mu yombal ko lool ba waa bitim réew yi ci boppam ñoom ñoo na ko yokk ko. Mhm. ndax lii pour ñu la koy envoyé sax problème la ci ñun moom da cee jublu woon nag ne kum seetal benn yoon dina ñaar ndax faaw di nga ko wëri. Mhm. loolu tax mu defee ko noonu bu baax a baax a baax. prix bi xéwale na yomb na te nee na daal kenn ku ci ñëw di nga bëgg fekk daal laa xam ne tayal na ci seet ci mu ci diggante ñaar ñuy sëy. Mhm. man boole naa kook jigéen jigéen bi am lu mu bëgg a dégg te sëñ Modou loo waxu ko ko. bi mu waxee mu ne waxuma naa ko ma ko ah est-ce que parce que moom sëy ñaar ñu sëy bëgg ci sori de. Mm-hmm. mu ne ma comme loolu la. ma ne ko xanaa dafa am nangam ak nangam mu ne ma waaw ma ne ko parce que man mi ko xam sax xam ma mm-hmm. mu xam ne ne mën na seet. mais dafa mm-hmm. bëggoon mu dugg fee te nee na. côté sëy nga bañ a dugg daal ndax bañ a. loolu ci lu wér. moo tax bu nit ñëwee sax léeg-léeg ne ma xoolal ma ci diw ne ma koy laaj ba xam est-ce que a ngi Mm-hmm. loolu am na ay nit yoo xam ne xamante ne ñu jëflante lu bari. Mm-hmm. mais ci fànn boobu duma ci dugg. doo ndax dama mënul fen mm-hmm. su ma ci gisee safaan dama koy wax. te mënu ma see gis ab safaan di wax am na ñu ma xam dama leen a xam ñu nekk ay mbokk jege ma lool. Mm-hmm. bu ñu ma seetloo ci fànn boobu sax du ma ci dugg ñoom xam nañu dama naa leen lii moom sawaruma ci. ndax bëgguma cee dugg gis ci dëgg duma la ko wax. waaw mm-hmm. parce que bu ma la nëbbee rek boobaa nëbbu naa la te li ci nekk tamit mën naa doon loo xam ne mën na yàq diggante ba. te loolu dafa bari. Mm-hmm. moo tax yooyu daanaka du ma ko def. kon ku bëgg lu leer moom boo ñëwee di ko daal dégg moo tax léeg-léeg. fan na koo xam dama ko seetal. boo ko seetalee pare ma ne ko li ma jaaxal mooy maanaam yow ak dee dalaa wër ba pare nanguwoo cee génn mu ne ma mm. xam naa ko parce que sama liggéey la mm. ma ne ko nanguwumaa wax nit sax sa liggéey nangam parce que nit danay jaay drogue nit di eh, mm. jaay boppam nga xam ko mais doo ko ko wax parce que loolu yow concerné wu la da nga ko seet rek dem ma ne ko waaye li ma jaaxal mooy yow dee gi dama jaaxal da koo xam yow mu ne ma dëgg la mu ne ma li may liggéey ci boppam ci dëkk bi ma nekk dañ ko fiy bañ te kuñ ci jàpp dañ lay rey mu ne mais xam naa loolu mais mënuma ko bàyyi parce que dama ko bëgg ah. waaw ah, ma ne ko nag waaw man mu ne ma man dama ko bëgg man dama ko bëgg donc man damaa gis ak dee wër la mu ne ma waaw xam naa ne bu ñu ma si jàppoon tey tey dañ may rey moo tax yooyu bu ñu ko gisee ci nit dañ ko koy wax léeg rek ñu génne nit loo xam ne am na loo xam daf koy fànq mm. xare bu ñëwee ci sarax dañ wax li lii fànq yan yi mm-hmm. eh, am loo xam ne nag dafay tax nit ki li muy yóotu mu mën ko jot mm-hmm. seet bari ay façons am na kook bu ñëwee ceew yow di seetlu. Hmm. dafa bëgg a xam xam fan lay teg tànkam. fan loolu bari nañ ci ay nit ñoo xam ne toujours am ñoo xam ne duñ génn 15 jours boo xam ne xooluwuñ. Hmm. am ñoo xam ne mois bu nekk benn yoon wala deux fois. Hmm. xam fa ñuy teg seen tànk ñu ñu dem ba xam ko parce que dañu dem ba maîtriser seen mbir. dafa mel ni que nit ki xam ne tey day dem ci benn téer di ñawlu rek. day dem ba yàgg téer bi dafay xam mesure am. xam day dem ba yàgg mu xam sax ay couleur am. xam modèle yi nga xam dafa koy bëgg. loolu yëpp suñu borom dañu cee dimbale waaye da gis koo xam ne it ñëwul ngir seetlu ngir mbiram mais dafa ñëw ngir dof-doflu wala test la wala nàngam mais yooyu dañ koy xam bu baax a baax a baax mais duñ ci wax nit ki ne ko lii lii mais dañ am fuñ jaar ak moom ba moom su amee xel su mm. paree dana xam ne kii xam na yooyu yëpp nag suñ borom dimbale nañ ci moo tax daal fànn boobu moom dañ ciy sant yàlla bu baax baax a baax mm-hmm. Mm-hmm. kon daal mën a dégg a dàq a critiquer seet mm-hmm. jàpp ne kenn mënu koo seetal ba gis ko kooku nga gën a soxla gis nga am na koo xam ne maanaam rabam moo fexe sax kooku bàyyi ma parce que rab bi arrangé tu ko woon mu hmm. jaare ko ci côté seet ma xam ko te waxuma ko parce que bu ma ko daan ñaanal ci côté rab moom sax xam na ko man yi may gis mujj du ma ko attan mais hmm. man du ma delloo avance ci côté bu ma xas engagé damay damay continuer moom xam na loolu daf ma ko daa wax ne ma li ma jaaxal mooy ñaan loo koo xam ne maanaam demul deux fois bàyyi ma ne ko man moom du ma bàyyi parce que xam naa mbir mi hmm. mais rab bi benn suur la ko dugg loo xam daf ko ko wax moom ci guddi gi bi mu xëyee suba la ma woo ma seeta ma nàngam te xam naa ko mm-hmm. ba mu jaaree nii ma jaar nee loolu moo tax dab bi dox suñu diggante ñu ñaar mënatut a accès ci man donte nag fi mu ne dañuy déggante mais xam na loolu man xam naa ko moo tax côté boobu dañ ko xam bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. seet daal ñu ngi ciy sant yàlla mi nga xam ne moo ñu ko taw fii xale macha mm-hmm. uh-huh. allah jërëjëf uh, sëñ Modou Kara Lo di ngeen li mu wax ci seet bu baax a baax a a baax kon ku gëmadi ku wet di seet mm. ak yooyu moom nee na mm. seet moom mm. muy ngay góor di jigéen di meer di mag di ndaw di tubaab di sinwaa di lu mën di doon rek bu la seetalee bu soobee yàlla di nga ci gis bu baax a baax a baax te léeg doo sonn nag saasaaxee nit di ci seet wala déedéet même ñoom lool sax dama leen koy wax léeg-léeg nit envoyé mor ko seetal ma ne ko ci misaal su ma julee tisbaar yóbbu ko ba mu julee takusaan wala moo ko takusaan yóbbu ko bu maanaam war laa seetal di la jox lu gàtt wala li war a génn ci yow mm-hmm. maanaam ma bañ ko def mm-hmm. moo tax bu ma demoon ba sonn sax mm-hmm. damay fexe ba ci waxtu wi ma sonnee duma dugal seet parce que seet moom dama ko jox yitte ndax gis naa maanaam lim lim ma indil gis naa tamit lim jëriñ nit ñi waaw gis naa lim jëriñ nit ñi maanaam amul suur boo xam ne du ma seet maanaam suur bi ma ñëwee fii tegtal fii nga xam fi laa njëkk def sama émission ba fii may waxee amul bis bu ma dul am seet kon xam nga loolu ñu ngi sant yàlla kon ak man la maanaam te maanaam maanaam fu ko neex mën na dem hmm. te loolu sax gis naa sax euh, ñu ma ci piraat mais loolu amul njëriñ <laughs> ah. maanaam ndax roy lu baax amul ku ne mën nga ko rek man manes naa roy nit ci wax yi hmm. man koo roy ci kii mais nag am na ci loo xam ne hmm. maam roy ci nit dafa xaw a jafe waaw <laughs> waaye daal waaye Mm-hmm. fànn boobu moom ñu ngi ci sant yàlla seet moom. Mm-hmm. maanaam communication mais baa jëluñu ni ngay waaw ma waaw yooyu mi nga maanaam am na yoo ñoo xam ne. Mm-hmm. maanaam comme li may wax ci nga xam ne suñu borom dama ciy defal tawféex ma man ko. nga xam ne maa ngi ciy jëflante ak ay nit. di ci am ay résultats yu leer. am na sax ñuy wax ne loolu ñoom ñoom ñoo ko dàq. fi ne gis nga wàllu seet bi nga xam ne waxoon naa ne eh, du ma wax ne maa ko fi dàq. ndax ba fawqa kulli shay'in ilmin alim yàlla nee na lu lu lu bari lu ne mm-hmm. wala ku xam lu ne teg naa ku la gën a xam ci kaw mm-hmm. waxoon naa ne daquma ko fi waaye juróom ñoo teg da ma boole ci juróom ñooña ci biir réew mi loolu moom moom mooy li am mais am na ñoo xam ne sax loolu fi ne ñooñu wax nañ ko xam naa ñun juróom ñooñu waroon nañ ñoo boole waat nag <laughs> ñu seggaat ñu ci biir ba xam <laughs> waaw waaw waaw waaw <laughs> ñu ñu ñu tànnaat ko ci biir waaye daal côté mm-hmm. boobu moom ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw kooku moom ci wàllu kurus la woon xam naa des xam naa ne dafa daf ma xamutoon ndax comme nit boo ko xasee gis nii yenn saa yi ni muy lewete ñun du ñu tooñ nit mm-hmm. mais bëgguñu nit tooñ mm-hmm. yaakaar naa fan yi maa ngi koy wax benn mbokk Euh, am na ci koo xam ne avant may sëñ sama kër gi rek ci loolu tooñ na ma ci tooñ bu goo xam ne mm-hmm. dama ne ko li ma naqari mooy man du ma fayantoo doo fayantoo waaye ma ngay am lu la naqari ndax maam nit bu liggéeyee turu yàlla mm-hmm. rawaxaal yi ci nekk léeg-léeg li mu ne fi mu ne nii mm-hmm. mu teg ko ci place ba dañ ko mujju tëj borom nga xam ne ka ko moomoon yoonam nekku ci maanaam yooyu bari naa bari xam nga benn jour am na ku ma la fi nett noonu ku jënd sama oto jaay ko noonu ba fi mu waxee ni mi ngi ci jafe-jafe te man yéene ma ko damaa bëgg mu ne ci jàmm mais mënatuma ci dara maanaam dafa am loo xam ne moo tax fi mu ne bu may jëflante ak nit nii sax mm. du ma bëgg maanaam mer dox suñu diggante mm. ndax man nga koo bañ a yéene mm. waaye ci ci ci tur yi ngay liggéey la boo gisee awliyaa ullahi wàllu yàlla yi eh, ay nit lañ waaye ci jaar gu ñu ci turu yàlla yi nga xam ne moom la yàlla waxoon ne samay tur la ñaan leen ma ci ma liggéey guñ ko liggéey ba mu wuyu leen mm-hmm. moo waral léeg-léeg nit wax dara ci seen ginnaaw maanaam mu indi leen jafe-jafe maanaam nit yéene leen dara mu am mm-hmm. xéewal loolu tur yàlla yi ñuy jaar la mm-hmm. tur yàlla yooyu nag ñun ci la ñu nekk alxuraan la toujours nañ ko daan waxe rek comme ni ñu defee julli juróom mu nekk farata nga xam dañuy julli noonu lañ ko defee nga xam ne toujours am na waxtu yoo xam bu ñu ci àggee dañoo war a wérd buñ ko fàttewoon mbaa ñu ne dañ koy fay loola kon ñu ko ngir ak neen am na lu tax ñu di ko def waaw bëgg nañ ijaaba ku ñaanal mu nangu mm. waaye bëgg nañ tamit maanaam aaru ci lépp mm. waaye képp ku ñu xam ñu aaru tamit mm. ndax bari na fii nga xam ne fa la ñu nekk tey di fa ñaane ak di fa faje am na dañu indi yenn feer wala ay gàllankoor bu ñu duggee day di dañ parce que loolu dañ ko fay miine maanaam ci sa kër sa makkaan am na ñoo xam ne loolu sax moo tax ñu tànn léeg-léeg ñu di fa ñëw ak ñoo xam ne bu ñu agsee rek loolu day day daal di dañ kon ngeen bàyyi ko xel yéen ñuy seetaan Tektal TV bu baax a baax a baax ngeen abonné euh, furus bés close émission bu ñëw ngeen ko ngeen am ko abonné nag doo ci fay dara fii yaa ngi dugg ci YouTube bi di seetaan nga gis sa téléphone nu bindal la abonné mu rouge mooy abonné gu bësal foofu rouge. Mhm. mu fexe ba dootul rougeati nga abone foofu bu baax a baax a baax a baax sëñ Modou Kara kon sëriñ bu koy toppandoo. Mhm. boo wàccee D2 yaa ko teg sa bopp boo amee lu lay duma yaa ko teg sa bopp nit ki roy ku bëgg lu baax da ko def. mais mhm. toppandoo ku gëmul bopp mu ko def. dee waxee. làmmiñ wi leen yàlla jox. Mhm. di mel ni ngeen mel. Mhm. di soloo ni leen yàlla mel melloo. Mhm. te bàyyi keneen ak yoon bi mu jël bu baax a baax a baax a baax. toppandoo moom da lay indi jafe-jafe rek. te wax dëgg yàlla suñ Mourou Kara Lo nag Tektal TV lay daw quoi te Tektal nag wax dëgg yàlla du sëriñ bu ne fi mën a jaar yàgg fi ndax dafa am condition yi fi nekk yoo xam ne ko yombul daal ndax sa liggéey li ci xew dañ koy yëgaat. te bu nu neexul dañ la koy wax wala ñu wax ko nit ñi ne kii moom lii mooy kéem yu mel noonu moo tax Euh, am na soo xam na ko moom def man émission ak ku leen rey lan yamale parce que dëgg bi loolu duñ ko fooye sëñ Modou Kara Lo gi nii damaa këru numéro am 750 22 60 li waral ma té këru ko li ma koy joxee bari ndax lan mbégte ma fay amee bari kon nag loolu du ma ko caaxaane bu baax a baax a baax a baax koo xam ne que lu ci ëpp daanaka ku coupé ñëw bëgg ne la bég naa ci moom mm. man mbégte boobu mm. dëgg yàlla du ma ko fooye bokkut koo xam ne que nag da ngay ñëw ak si nit ñi ne la waaw ba ma ko dugalee jotaata ku ma ko lii nangam nangam ah def naa de xam nga. saa mm-hmm. man bëgguma nga aay ci émission yi ba pare boo wàccee ci suuf tamit ngay wàññi engagement bi mm-hmm. dëgg laa soxla. Mm-hmm. ah sëñ Modou Kara Lo. léegi nag comme seet nga wax sarax. am na kaañ la boo xam ne que euh, sëriñ si. lu jëpp ëpp kaañ lañ koy def. te dégg nañ ne kuy ñaan lu moom boo xamee sa sarax rek lu mm-hmm. bari mën na am jàmm daal mm-hmm. kon léegi ki bëgg saraxam mm-hmm. xam ko ak di ko def euh, ak xam sarax nan nga ñu ñëwaal ci waaw sarax lu bari ay njëriñ la ndax dañu wax ne am na ay njariñ yoo xam ne ki koy def fi àddina suñu boroom dana ko ko defal ba ca njëkk mu doon lu am solo rek yadfa'ullaahu anwaa'an minal balaa suñu boroom dana ko ci dàqal mboolem xeetu nattu yi yi nga xam ne mën naa dal ci jaam bi te ku ci nekk ak la yàlla di nattoo hmm. am na koo xam ne yàlla def koo nattoo maanaam am nattoo mooy day wax lu dul dëgg. lu hmm. am koo xam ne nattoo mooy lu mu yaakaar du ca jot. du ci hmm. waaw am na koo xam ne tamit maanaam dañ koo nattu ci. jël yëfi jàmbur. jël am na koo xam ne dañ ko nattoo ci maanaam lu am lu bu ko xëyee am ko balaa ngoon mu ñàkk ko. am na lu koo xam ne lu mu am moom ayib. yooyu yëpp nag ki ci bëgg a mucc. na daal di fonk sarax. fonk bokk na ci yemi jariñ Euh, sababul barakatun lil maal. Hmm. maanaam dina tax nit ki alalam barke. Hmm. alal ju barke nag du bokkut ak alal ju bari. Hmm. alal ju barke mooy mi ngi mel ne nga amoon sa cent mille francs. génn fii di jëndum xar. gis fi xar mu baax nga jënd ko quatre-vingt-dix mille te xar mu baax loolu nga dellu si waat sa dix mille. am ku yor deux cent mille génn fii. jëndum xar moo xam ne dese na ca bor te bu ñëwee yaa ko gën le yaa ko gën le te yow delloo si nga dix mille barke mooy day tuuti ba pare man dara loolu mooy alal ju barke maanaam nga xam ne li nga am yow maanaam bariwul. waaye mi ngi faj say yitte. nga gis koo xam ne li mu am bari na lool mais fajul ay yitteem. loolu bari na fii ci ci réew mi. xam koo xam ne moom mi ngi am mi ngi am solde bu baax. Mhm. mais bu daanaka bu ko xoolee rek bu defee dara rek mu daal di jeex tàkk. nga xam ne da mhm. nga bu ñu ko fayoo ko wala benn mois. Hmm. commerçant bu mag sax da naan est-ce am na lii. ngoog ba pare tamit restaurant bu ñu dem gaa dem fa. kilote hmm. bu mu sol gaa yi bu mu yor gaa yor ko hmm. da naan kan. lii moom nu mu noonu. waaw moo tax. sa sarax dina barkeel nit ki alalam. tax li nga am mu tuuti. Eh, lool mu mën laa jëriñ. mën a jëriñ boo ko joxee kan la boo xam ne ko ku ko xëy di def rek. dina baax ci yow ban sarax la. waaw sarax boobu mooy mën naa ko jox ci ñetti fànn. ki nga xam ne maanaam wàllu cat moo ko sonal. kii cat sonal waaw. waaw kooku na fexe bay wut fukki saabu ak benn. fukki saabu ak benn yow waaw maanaam fukki saabu ak benn. waaw su noppee mu wut ay dàlli carax. ay dàlli carax. waaw dàlli carax. su ko wutee nag na ko wut nag bisu alxemes wala altine. Ah, waaw wala altine mu ñaan ci soxlaam saraxe ko. waaw bu génnee nag ku mu njëkk a gis da koy sarax. muy muy góor ak jigéen mag ak ndaw. ah bu dajee koo xam ne que ab boos la bu dul jël salaam. ah bu mu njëkk waaw bu ko ko joxutin mooy man naa am ci keneen ku ko jël rek mais loolu mooy sart bi. Ah, ah, ah. maam sart bi. xanaa xamoon ne sëñ Cheikh bari na euh, secret xaalis yoo xam ne. waaw maanaam nit da koy def. te mm. li la ciy dimbale mooy boo génnee ki nga njëkk a dajeel nga jox ko ko. Mm. maanaam loolu mooy sart bi waaye boo nga jël fukki saabu ak benn. moom itam nga daal di koy saraxe waaye li gën mooy na nga ko jox jigéen jigéen jigéen ji nag bu mënee yor doom di ah. nàmpal doom ji nàmp moo ci gën waxuma ku ma sa am doom mais fekk na jamono boobu mi ngi yor doom ju toll ci nàmp moo ci gën nga sarax ko bu dee ki yori cat hmm. bu dee ki nga xam ne nag côté rab la kooku la ci gën mooy na bàyyi ba altine altine wala alxames waaw ci yoor yoor côté onze heures mu jënd benn seq ginaar bu xonq mu ñaan soxlaa mu saraxe ko rab bu ko mën di yàqal da koy daal di bàyyi insha allah bu dee ki nga xam dañ ko liggéey hmm. ginaar bu jigéen lay jënd ginaar bu bu ñuul lay doon bu ko defee moom mu saraxe ko bu ko def rek baax na bu dee ki nga xam ne nag dafa bëgg saraxe ngir coobarewu nga xam dafay nga fay dafay saraxewu hmm. ngir bëgg rek yàlla maanaam fay ko ci aw yiw hmm. waaye ba noppi nag daal di ko ci yokkal ay buntu xéewal la gën mooy mu def sarax boo xam ne daf koy togg daf koy togg waaw wala mu jël sarax boo xam ne tisi la maanaam yére bu moomal boppam wala boo xam ne dafa dem jënd ay mètre mètre yi nag la gën mooy mu tàmbalee ñett wala juróom-ñaar hmm. wala neuf wala douze wala douze wala seize wala vingt neuf wala vingt neuf waaw lim yooyu bu mu ci def rek mu hmm. mu def ko sarax baax na hmm. wala mu togg togg gi nag non amul couleur amul couleur waaw togg bi moom mu waaw mu togg ay xale mu togg jox ay xale bu fekkente ne koo xam ne yaakaaram ci li muy tas dafa bari. waaw kooku moom li gën mooy mu def sarax boo xam ne ñetti ndab lay def. ñetti ndab waaw. Mhm. ñetti ndab yi nag na doon ceeb. ceeb ceeb bu am yàpp. mais du ko teg ci kaw da koy suul ci suuf ba kenn du ko gis. Ah, mu jox ko xale yi ñetti ndab kese lay doon. incha allah kooku lu baax la ci borom yaakaar juy tas. incha allahu rabbi kon mm-hmm. baax a baax a baax a baax. Mm-hmm. Euh, sëñ Modou mm-hmm. ginnaaw bu ñu jógee ci sarax. ñu ñëw ci euh, jamono ji nga xam ne que événement bi presque lañ doon xaar Euh, depuis président Ousmane Sonko ñoom dafa mel ni li doon togg. Mhm. yàq nañ ko. Mhm. fi mu nekk ñoom am na ñoo xam ne que tëddatun. Mhm. nelawatun tiit nañ. ndax lan seen alal mën nañ ko ñàkk wala mën nañ dem kaso. wala mën nañ fay. lu ne ngi commencé di am. ci ñoo xam ne ko dañ doon yor ndomb tànk yu rëy ñoo xam ne ko ci dëkk bi. Euh, seen euh, maanaam daal. bu gaare woon ci digg tali taxaw foofu. Mhm. di fa attaaya mhm. kenn mënul leen dara. Mhm. ñu mel noonu temps yii. ñu mel ni ñu nelawatul. loolu ñu ku ku ci rëcc. ñëw tiit ci kaso pour bëgg a bañ a dem. kooku mënoon nga ko daroo la. waaw ñoom ñi wàcc. waaw am na ci ñoo xam ne xam nañ loolu ne mën naa ko. xam na ah, ah. xam nañ ko biir waaw. am na ci ñooñ mën naa am di nga leen xam. ci ma jëflante ak ñoom. waaw am na ci ñoo xam ne nag. wéyal nañ kóllëre gi am ñoo xam ne xam nga nguur dafa doy waar am ñooñ buñ ci xasee toog fàtte seen nit yi démb mm-hmm. fàtte la leen fal fàtte mm-hmm. ñuñ daan àndal sensé ay numéro wutaat yeneen xameel yeneen xarit mm-hmm. day am parce lim laal moom moo kawe moo tax boo demee ba wàcc nag da ngay bëgg nag ña nga amoon démb tamit nga nekkaat ak ñoom parce que nit ñi moom euh, la suñu bilaad waxoon rek kaw kenn dëkku fa kuy aju ajul toogal suuf di ko xaar yàgg yàgg day wàcc Mm-hmm. ñaan nag fii la amee solo. fii la amee mm-hmm. waaw ñaan surtout li jëm ci wàllu kaaraange protection. Mm-hmm. fay ay wax. fay ay rawale sa alal. maanaam sàmm sa njaboot. lu am solo la. lu am solo loolu lépp mu ngi delluwaat ci yàlla ndax gis nga nit ki. boppam maanaam yàlla la ko war a dénk. dinaa ci ñëw ci naka la koy dénkee. nan la koy dénkee njabootam. yàlla la ko war a dénk alalam. Seexul Xadim sax ba muy ñaan dafa yàlla ne ko nafsi wa diini suma ahli wal walad. wa maskani lakka wa dihatun abad. yàlla sama sama jëmm. Mm-hmm. ak sama njaboot gi ak sama alal gi ak sama dëkkuwaay bi dénk naa la ko. dénk naa waaw. léegi nag toujours boo gisee li ma doon wax ci wàllu seet day am ñoo xam léeg-léeg boo ko boo leen seetalee sax. Mm-hmm. di nga gis ne seen mbir ci yàlla nga ko war a delloo. maanaam ci boo leen bëggee aar dara. Mm-hmm. dafa am turu yàlla buy feeñ boo xam ne. boo leen bëggee defee kaaraange foofu ngay dugg ak ñoom. am ñoo xam ne boo leen bëggee yëkkati foofu ngay dugg ak ñoom. am ñoo xam ne boo bëggee fayal leen coow foofu ngay duggee ak ñoom. Euh, ñaan nag gu wér ci turu yàlla. maanaam amul ki nekk ci pouvoir bi ak ki nekk ci suuf ndax yàgg naa wax fii ci émission bi ne maanaam ñun nit réyul fi suñu kanam waaye nit tuutiwul fi suñu kanam nit réyul fi suñu kanam mooy ndombal tàng lu ñu la mën a dénk mm-hmm. du ñu la ñaanal ba di ko ndamoo mbaa nit ñi di xam ne ñoo lay ñaanal mm-hmm. ndax yaakaar nga am del ñëw si ñun mm-hmm. kon yaakaar na ñu laa ndamoo beneen ba mooy li nga yaakaar ci ñun nekkul ci ñun mais ci yàlla la nekk yàlla moo ñu may ñu yoon wi ñu xam xam-xam boobu di ko ñaan kon euh, duñ ko ndamoo kenn tuutiwul fi suñu kanamit mooy maanaam du ñu xool nit ni mbubam dafa woyof wala am amam dafa néew ba tax mu ñëw ah, duñ jëflante ak moom mm-hmm. wala ñu di ko xeeb wala ñu ñàkk koo yaatal déedéet mm-hmm. ñëpp dañu gëm ne jaami yàlla lañ ku ñëw ñu ànd ak yow su ko defee nag ñi nga xam ne dañoo nekk ci eh, kaw ak ñi wàcc nga xam ne képp koo xamante ne nii maanaam bëgg nga maanaam sa nga nekk ci sa bopp maanaam nekk sa njaboot sa am mm-hmm. am ndax nag bari na koo xam ne la mu am day xëy xëy ñàkk ko. Mhm. fan yii maa ngi ñaanal ñoo xam ne. Mhm. kenn gi sax nee na ay milliards doon na jaaj samay loxo. te fi ne nii leen saa dañ may joxel dépasse. xam nga am am na am am yoo xam ne bu ko nit ki di ñàkk day yomb. day yomb comme ni nit ki di wute mu jafe. léeg mën naa xëy bis am ci loo xam ne mën na koo defaral ay ati ati ati at. Mhm. wala mu jaar fa nekk millionnaire wala milliardaire. loolu mi ngi sabab ci ay ñaan gu nangu. léeg-léeg nit alalam raw. te mi ngi aju ci wàllu kaaraange gu mu am te kaaraange dëgg gi fi mag ñi bàyyi mm-hmm. muy kaaraange goo xam ne maanaam mag ñi dañ daan aare seen alal mm-hmm. maanaam ngir bóor yi duñ ko mën a foqarti mm-hmm. kon loolu nekkul bu ñu nee nit ki dañ koy aar ba ñi fi nekk wala ñeen duñ mën a jël alalam maanaam du ne luñ créé lu bees la waaye mag ñi ñoo fi bàyyi xam-xam boobu mag ñoo ko fi bàyyi ndax buur daf daan def ne bu la ëppee doole jël sa alal teg ci loxo waaye nag du far tamit koo xam ne Mm. da ngaa bëgg a jël alalu jàmbur. ba pare tëdd ci. benn yoon lañ ko ma a defal nit te xamuñu ko woon. xamuñu ko xam ne kooku dafa jël oto jàmbur waaw noonu dafa dafa nekk sama nit rek ñëw ne ma maanaam ni dañ maa bëgg a tëj nangam nangam fexeel ba buñ ma tëj. Mm. ma fexe ba tëjuñu ko ndekete oto jàmbur la jaay. ci beneen réew. boobu sax wàllu course lañ ko liggéeyal. Mm. mu daal di raw bi mu ñibbisee la ñu ko wax. waaw ndax xam nga sa nit bu la woowee ne la dimbale ma léegi rek boo gaaw danaa dugg ci kaso bi yow la ngay njëkk dem mooy fexe ba bu mu dugg ci kaso bi ba pare door a lijjanti lan la mm. waaw mm. waaye nag comme suñu borom subhanahu wa taala du ànd ak kuy tooñ ñun nekk ab jaamam du ñu ànd ak kuy tooñ mm. maanaam koo xam ne daal doo ab tooñ kat boo ñëwee insha allahu rabi ñu ànd ak yow ci wàllu kaaraange képp koo xam ne dangaa bëgg a yéeg tamit te nga nekk koo xam ne ku fas yéene defar la boo ñëwee ñu ànd ak yow ndax euh, état bi fi nekkoon maanaam nguur fi nekkoon régime bi daanu am nañ ci ay nit ñoo xam ne mm. maanaam suñu borom jaare na na seenu pal ci suñu loxo mm-hmm. am na ci ñoo xam ne kóllëre googu ba ñu ngi koy dox waaw am na ñoo xam ne nag maanaam loolu waaye danañ jël si waat ndax daanaka euh, olof yàgg na ko wax ne ndawul mbooy xaar ko rek ca taatul ndaala du ñu yàkkamti mm-hmm. du ñu soñu kenn du ñu ñaan kenn du ñu leb kenn mm-hmm. ndax doyloo nañ li ñu am te ñi ngi sant yàlla nag ci xéewal yi ñu defal bu baax a baax masha Allah sëñ Modou Kara Euh, ñi tiit mais ku tiit nag dëggantaan. Mm-hmm. xuma lekk na alalu réew mi wala mm-hmm. lëkk mais daal tiit na. Mm-hmm. léegi bu ñëwee heure bi loo ko mën waaw tiit moom bokk na ca la ca njëkk sax muy euh, li ñu doon wax léegi muy sarax. sarax bokk na ci amaanul minal xawf maanaam dafay tax nit ki. dindi tiitaangeel doomu aadama. Mm. fi mu ne léeg-léeg nit tiit ba naqaree ñaanal ah. mais bu ñëwee li ñu njëkk def mooy fexe ba génni la ko sarax boo xam ne da koy dalloowaat delloo siwaat ko delloo siwaat ko waaw ndax am na koo xam ne léeg-léeg boo xam moom ci ko def yàgg fa ak ñi Umra yàgg fa ak ñëpp daal comme ci mën di doon bu ñëwee mën nga ci daal maanaam euh, sëñ Cheikh waaw addina euh, bi nii mm. xam nga mas naa ko wax fii ci Tektal TV. Euh, jamono boobu sax yaakaar naa ne mooy sama première émission. <laughs> ba nga am loo wax ci Macron. Macron ba ma ne tubaab yeeg nit ñi ñu ñooyam. Mm-hmm. gis nga li ñuy li maanaam li ñuy ñaan du ñun. yàlla la. yàlla ndax yàlla am na benn jaam bu ko tëj ci lenn. Mm-hmm. amul kenn tawu ko amul. Euh, maanaam dina am ñoo xam ne danañ dëgg lii ma wax ci biir émission Tektal bi am na ci ñoo xam ne Europe. Mm-hmm. maanaam dañuy jékki-jékki ñaari mbir. benn ñu ne leen seen liggéeyukaay dañu leen a bëgg a dàq mhm. jox leen bis wala seen dëkkuwaay ñu bëgg leen a génne mhm. ma saafara ko te du leen jox dara te du jox dara te tubaab yi ñoo gën a tar ñi nekk fii te ñoom daanaka lu ñu xas wax dañoo fonk kàddu lu ñu xas mhm. bind seen papier yi te loolu li ma ci am ci ay ay kenn xamul nu mu toll te du ma jox kenn dara kurus rek kurus rek du ma jox kenn dara kurus laa koy def ah kon moom damay jaare foofu ñëw ci ñaanu kurus ñaanu kurus nag waaw noonu ki mu fi mu toog maanaam mu soit mën na ñuqi lu bari moom. Mhm. mais sarax yaag moom daal lay nekk ci kii nga nekk ci moom. ak mhm. njabootam. Mhm. mu am jàmm xéwal ñëw ak yu mel noonu kurus fonk. te mu neex ñu lool. te ñu ko lool nga xam ne toujours bu ko nit def la wut sax ñu ngi koy def. ndax euh, amul dimanche bu ñu dul tàmbali. riyaada. mbaa xalwa wala wala wala wala dimanche. ñu tàmbalil ko suñ bopp. bu ñu ko kenn defloowut léeg-léeg ñu defal ko nit dafa am nag waaw non duñ la mës a fàtte ah, ah. Euh, dafa am lu ñuy tuddee hmm. course boo xam ne dafa jëm ci wàllu riyaada waaw riyaada nag mooy nit ki nga war ko waaw rakkam la mooy nga war a ñaanal nit ki ci wàllu course hmm. mais boo bokkut ak xalwa. xalwa maanaam nit ñi mën nañ lay gis. Mhm. mais doo voyager. doo voyager ci misaal boo ko doon def dakaar doo génn dakaar te parewul. te doo nekk di tourner di yéeg ay oto di yéeg ay sa dem ko mais mën nga nag léeg nga dem boutique ba. léeg-léeg nga doxantu léeg nga mm. dem jàkka nit ñi di la génn léeg nga toog sa waa kër. Mm-hmm. mais dafa am ay waxtu yoo xam ne su àggee. dafa am ay lim yoo war di liggéey. di ko liggéey ba mat juróom-ñaari fan kooku la ñu tudd riyaada. Mm-hmm. li ñu tudd xalwatu nag. Mm-hmm. Euh, dafa bari ay façon defal ko nit ci benn bëccëg waaw léeg-léeg ñu defal ko nit ci benn guddi. ci benn guddi léeg-léeg defal ko nit ci ñetti guddi. léeg-léeg defal ko nit ci juróom-ñaari guddi. macha euh, allah léeg-léeg nag nit day ñëw ne. Mhm. man bu juróom-ñaari fan bi laa bëgg. xalwatu juróom-ñaari waaw ba pare. du ci bëgg a mhm. def nag. li ci war. ndax ndax ndax xalwatu. Mhm. toujours moo ko bu ñu xasee ñetti fan. waaw ak ak weer am na fukki fan ak juróom am na 16 jours am na. 16 jours am na sax 41 jours. 41 jours waaye xam nga yooyu daanaka kenn duggatu ko ndax. Mhm. maanaam 41 jours nit ki jox la loo xam ne moo yor sa kër. Mhm. ba pare boo génnee mu mën a yoraat li sa kanam. Mhm. loolu gars yi duñ ko def ndax dañu jàpp ne ay caaxaan la. ay waaye ñun ñi xam kurus te di ci nekk. xam nañ ne kurus moom du caaxaan. lu ko gën a gaaw euh, amul ba pare dafay saxal nit gis nga wàllu sangu. ak wàllu sarax. baax na ndax nit ki su bëggee bayre bëgg ah. ubbeeku bëgg a saf nit ñi bëgg léeg-léeg mu am ah. maanaam ci wàllu sang la koy jaar waaye bu ah. bëggee li mu am nag sax maanaam continuer ci wàllu kurus la moo tax mu waxoon fi ne maanaam ki am xam-xam dëgg xam-xamu kurus am xam-xamu lasraar maanaam du torox moom maanaam ñàkk waaw te lépp lu dugg suñu borom da ko cay fekk si mm-hmm. ndax euh, suñu borom lay woo toujours rek kurus moom lu am solo loo xam ne lu ñu fonk la te dañ koy def di ci am ay résultat yu baree baree bare mais course yow nii nga ko wóoloon nii nga sawar ci am na sëriñ soo xam tamit mhm. est-ce que ñaan loo leen ci course du risque ah, parce que tey nga jël xaalis bu bari jox leen bañ a wuti kaaraanga bañ a wuti dara bàyyi sa bopp noonu fekk ñoom ña nga ca whatsapp ba ña nga ca sinap ba mhm. nga ca tiktok ba mhm. fàtte nan la ci lu wér léegi maam yow nga jàpp ne ñu ngi lay ñaanal moo tax ñaanal koo xam joxoo ko dara maanaam yan assurance nga koy jox ba mu xam ne yow mi yaa ngi liggéey xam nga man waaw bu ma nit joxul dara sax maa ngi ci course waaw maanaam kooku kon bokkut ak maanaam rawatina bi ñu ko joxee dara. Mm-hmm. ki nga xam ne boo ko joxul dara mi ngi ci kurus. waaw maanaam man su ma toogoon wirdu ma. Mm-hmm. maanaam yor àddina ak li sa biir day mel ne man nekku ma. maanaam dafa mm-hmm. bokk ci sama deret li may li may dundal man di wird. wird maanaam dafa bokk ci li may dundal. dama ko bëgg. léegi nag wird ci boppam daa doon loo xam ne. waxoon naa ko fii. surtout nga defal nit riyaada wala xalwa. Mm-hmm. dafa mel ni que nit ki nga xam dafa toog ba mu yàgg rek ne dugal ma ci ci terrain ma football te dawul entraîne ñu bëgg ko dugal quatre-vingt-dix minutes <laughs> kooku day daw cinq minutes <laughs> léegi nag nga bëgg yoo nit ki ne dama lay defal xalwatu ah. te yow ngir ñu laa mille doo ko def man koo xam ne man daanaka koy liggéey par bis par jour nga xam ne dix jours yu ne cent vingt-quatre mille la am te bokk sama yeneen wérd yoo xam ne mm. yii moom tatawux la ak yi nga xam ne laasim la ci yow lu demee hmm. nekk ay maaxuus musabahatul xasr yeneen yi nga xam da nga koy def nga xam ne yooyu moom laasim la hmm. da nga ko war a def hmm. bokkut na yeneen yi nga xam ne tatawux la maanaam yaa ko coobareew di ko def ak yi nga xam ne da ngaa jàpp ne tey a waaw waaw yooyu moom loolu moom léeg sax nit day ñëw ñu xam ne kii kurus moo gën ci moom waaw léeg ñu xam ne kii moom maanaam ñaanal ko defal ko kurus ba noppi ñaanal ko ñaar yooyu la assurance fan la jógee ki nga ñaanal kurus mu jël xaalisam jox la toog di déglu nan lay xamee ne waa jii liggéey na ba pare da da nga koy assuré ne ko. Ah. may ma feeg semaine di nga yëg sa bopp loo mosul yëg. mu tax wala di nga gis loo mosul assurance la yow mi maanaam toujours boo maanaam booy wax lu ma maîtriser damay damay am mbégte. Ah. gis nga kurus. Mhm. maanaam boo ko tàmbalee. Mhm. maanaam di ko liggéeyal nit. Ah. doo tëdd guddi te wanuñu la. te wanuñu la waaw. doo tëdd guddi te wanuñu la. boo demee ba trois mu jour bi. Mhm. faaw ñu la loo xam ne mbir mi dina sotti mbaa du sotti. Mm-hmm. sarax wala doo dem sarax man fi mu ne léeg ma tàmbali mbir moo xam ne dem ba ci biir ma arrêté ko parce ki nga xam ne moom laa ko defal dafa war a génn sarax te man xam nga sarax du sart ci man léeg dama naan la defal ko sa bopp mm-hmm. su ma la ko def sa bopp mbaa ma defal la ko boo mu wóoloo mm-hmm. su ma toogee gis ne defoo ko dama koy arrêté parce que yi boobaa du nekk ci yow mais ci man lay ne parce man maay woo tur yooyu su soo juróom-ñaari fan yi matee wala lim bi mu matee da ko gis. da gis da nga bala ngaa tàmbale war naa am sarax boo demee ci biir am na saraxu boppam. Mm-hmm. yooyu yëpp nag dañ la koy wan léegi nag ki nga xam ne. Mm-hmm. maanaam ni nga ko waxee léegi du compétir. Mm-hmm. kooku. maanaam match bu démarré sax mënul xam dañuy gagné wala déet mais yow boo dee seetaan katu match sax boo gisee match yu démarré tout di nga xam kat moo man mhm. kon boo tàmbulee yow mi nga xam ne wérd kat nga di nga xam kii mbiram mi dina sotti mbaa du sotti am na ah? koo xam ne defal naa ko xalwatu ñaari yoon te benn xalwat la ma fay parce que damaa dem ba ci biir ma gis ne kii xalwatoom bi maanaam mbiram du ci sotti du ma defaat beneen ne ko ci benn bi lay doon ndax maa la waxoon ne ci lay sotti ñaari xalwatu laa ko defal ci quatorze jours waaw pour moom la loolu loolu loolu dañ ko xam mais li nga wax noonu rek. Mm-hmm. képp ku koy def loolu na nga ko defloo ku ko man ku ko man ku ko xam. koo xam ne nitu kurus la. Mm-hmm. waaye nga xam ko tamit mu bañ a nekk ci ay caaxaan. tam mu bañ a nekk ci caaxaan. Mm-hmm. parce que nga la fële moom moo wax dëgg yàlla. baaxul ci xalwatu daal nga euh, sëñ Modou Kara Lo léegi benn mbir. daf ma jaaxal sëriñ si. ak askan bi. est-ce que bu ñu waxante dëgg. naxante amu fa. parce que la moo tax ma ne naxante amu fa. Euh, boo yoree oto buy jaay. nga ne mhm. oto bi douze millions lay jar. Mhm. ki fay dix duñ ko jaay. Mhm. bu dee waa jaral na ko. ki fay onze duñ ko jaay. ku te pourtant kii lim fay prix bu baax la. mais lan moo waral sëriñ si. nit ñëw di leen ñaanloo. ci gàttal koo ci laajoon six cent mille. man na ne yii six cent mille fu ma koy jëlee. te lim lay ñaanloo. ñaanal nga ko pour nga mu am kaaraange dara waru ko dal. dafa war a yor xaalis. xaalis bi mu yor bu ko yor a pare daf ko war a mën a téye. Mhm. est-ce que dafa war a am bayra neex nit ñi. Mhm. warul soof kenn. Mhm. fu mu bëgg a dem na ko yomb. bu bëggee ñëw na ko yomb. est-ce daal nit ñi nañ ko bëgg. bu dee góor la jigéen ñi nañ ko topp. bu dee jigéen la góor ñi nañ ko topp. yooyu yëpp dajee. dara war ko yàqal te boo ko laajoon six cent mille. mu ne la euh, ëpp na. dëgg la est-ce que yaa xam naa te yooyu noonu ngay wax yow benn benn boo ci soxla rek un million a ko maye. moo tax ma ne est-ce seet askan wi na xam te amul foofu. Ah, nga man boo gisee toujours loolu laay wax. Mm-hmm. li ne ci nit ki gënaluma gënul gënaluma li ne ci man. Mm-hmm. nit mënut a am dara dara ba ñëw sant ma loo xam ne. Mm-hmm. damay yàkkamti man ba bëgg a jël loo xam ne du ma arrangé. maanaam pour bëgg lu ko neex ne dama lay ñaanal. man li ma la xas wax dana man nag am naa yërmande ci côté boobu. yoo xam ne dara ci li may jëflanteeg nit ñi ci fànn boobu. waaye nag am na loo xam ne du ko noonu gis nga nit ñi. Euh, toujours. dañuy bëgg valeur nga ñaane valeur boo xam ne ni nga ko xam mën naa doon ay millions wala ay milliards. Mm-hmm. mais duñ man ci sax ay junni. waaw damaa jël na ay fi na ñoo xam ne jàpp nañ ne maanaam nit yëkkati cinq cent mille wala un million jox ko nit kooku kooku kooku kooku caaxaan la mm-hmm. am nañu jàpp la waaye am na ñoo xam ne tey situation ba ñuy nekk parce que dañ gis koo xam ne day génn fii ñu jàpp ko mm-hmm. maanaam bu ñu ko laajoon tey euh, cinquante million ngir mu génn mu joxe ko ngir dem Mm-hmm. nga gis koo xam ne danga koy laaj tey 2 millions ngir moom duñ ko yóbbu mu bañ mais dañ koy jàpp dem ñoo xam ne dañu dem ba ci biir nag su boobaa ñu bëgg a dellusiwaat beneen ba mooy euh, li nga wax ne naxante amu ci xaw na cee bari ci fànn da nga gis léeg-léeg mm-hmm. sëriñ bu nax askan bi waaw léeg nga gis askan bi waaw di nax sëriñ bi mm-hmm. wala nga gis ci askan bi ku bëgg a nax askan bi ba jariñu sëriñ bi loolu mooy da nga gis ñoo xam ne dañuy weddi sëriñ ba mm. pare ñoom ñooy wëlbatiku di ko rangaat di ko rangaat waaw mm. maanaam di ko rangaat maanaam yàlla di fi jëlee àddina bi maanaam mm. nit ñi duñu dañ di ñaanlu nit ñi duñu dañ di nekk di ñaan léegi nag li am solo mooy ci yow yow yow yow yow yow yow mi nekk ci eh, réew mi mooy nga xam ki lay ñaanal kan la est-ce que lii man na ko est-ce que lii xam na ko mm-hmm. est-ce que lii tamit lu dëggu la ci moom lu nekk ci deretam moom est que jaral na ko jaral na ko bàyyi na léegi bul ci xool ma nga ci àll bu xonq ba bul ci xool booy dem daa naqaree dem daa nekk Dakar ma nga hôtel sàngam déedéet mm-hmm. mbir mi nekkul foofu mm-hmm. man fu ma dem ci àddina man naa ñaan te du ma yóbbu dara a maa bañ a yóbbu dara fii maa ngi sama course gii ma yor nii mm-hmm. maanaam fu ne lu ne mën naa ci ñaan bu dee wàllu xawaati mi ngi ci bopp bi bu dee wàllu bind mi ngi ci bopp bi fànn yëpp mi ngi ci waaw kon xam-xam nekkul loo xam ne lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy làmbatu la dañu ilmu kulli shay'in afdalu min jaxli yi lu ne mm. nga xam ko daa gën nga koy xamantu mm. wala nga réere ko sax nag mm. ndax boo ko réeree mën nga caa def musiba waaw kon daal diggante askan wi ak ak ak sëriñ yi la boo xam ne du neex a li jënd ko daal xool la jóge ci ci yow la jóge dee yaa ko proposé ah. ah. mm-hmm. mm-hmm. ko defee nag mm-hmm. euh, ki nga xam ne maanaam maanaam dafa bëgg ab sëriñ. Mhm. dafa war a fexe amub sëriñ. amub sëriñ maanaam nit dafa war a amub sëriñ. Mhm. tey boo ne sax am murid laa. ah da nga ne sëñ Fallou mooy sama sëriñ. mooy sama buntu sëñ bi. Mhm. maanaam boo nee Tidiane laa. di nga ne sëñ moo ma jox wird. maanaam moom moo jox wird sëñ bii moo ma jox wird. waaye da gis koo xam ne mbiram kenn xam ko moom sax xamul kuy sëriñam. te dinaa la li may ñaanlu mais boo ne ko yow kan mooy sa sëñ dëgg du ko xam. gis nga nit dafa mel ni que oto bi nga xam ne mécanicien bi moo koy dépanner toujours da koy xam. da koy xam foo paane boo ko mu ne la nangam la. mu maanaam man bari na ñoo xam ne toujours lu nekk ci ñoom dama koy xam. Mhm. maanaam bu ñu xëyoon xëy seen mbir ni taxaw damay mhm. xam li leen téye. Mhm. damay xam tax parce que lan dama leen a yàgg seetal. ba xam am ñoo xam ne toujours toujours toujours man dañ cee dem ba. léeg sax dañu ñëw dugal dara damaa bëgg a seet ma ne ko lii jërul seet jërul seet parce que euh, comme luy waral loolu mooy mm. toujours nga wax ko loo xam ne da cay gis njëriñ toujours nga tere ko loo xam ne tamit day gis ne bu ko defoon mm. lor lay doon ci moom xaaral ma joxewaat numéro mm. bindal sëñ Modou Kara Lo 77 750 22 60 77 750 22 60 bi am na whatsapp euh, nga woo ko wala nga insisté euh, message bu yeexee tontu dolliwaat nga woote mu kii dolliwaat bu baax a baax a baax a baax moo ngi ci Kër Massar beneen bi 750 22 60 77 la beneen bi 76 396 53 81 76 396 53 81 bu dee Dakar la euh, Kër Masar la nag ci wetu Jamil Kora. waaw. Mhm. bu dee Touba Madiana 6 Madiana 6 mhm. ñu wax quartier Mouwahib rek. quartier Mouwahib pàcc doomi Sëñ Saliou waaw. macha allah. nga dis ko soxla woon ci man mu def ko leneen ñu bàyyi yàlla mi xam tëlewul dara te mën a lépp léegi ku bëgg a ubbeeku mbir yi dox mu am mm-hmm. bayra mm-hmm. saf nit ñi góor ak jigéen mag ak ndaw bu dee mm-hmm. jigéen la bëgg jëkkër góor ñu bari ñu baax wut si ko mu tànn ci këgën bu dee góor la jigéen ñu bari ñu baax wut ko mu tànn ci këgën bayra daal ak ubbeeku ku ko bëgg ubbeeku suñ ci lu am solo la ndax nit ñi foofu lañuy ñuy rawantee ci seen am amu àddina te képp ku la gën a ñeme saafara bu baax bu baax bu baax waxuma rek saafara bu baax a tax ma may wax am na ñoo xam ne mënuñoo bind sax saafara hmm. bari na sëriñ ñoo xam ne mënuñoo bind saafara bari na sëriñ ñoo xam ne du ñu bind saafara dañuy bind lu ci da nga koo xam sax mën naa dajale kii yu ngan di jox la bind ma bari lool nga di ko yéem baa na nga di ko laal doo ci gis dara hmm. nga gis koo xam ne daf lay jox kayit wu ndaw hmm. maanaam bind ci loo xam ne du bari nga laal ko mu jariñ la ndax xam ne man léeg-léeg am naa façon sunguf yoo xam ne ku ko laal da nga naa ma sa sunguf sa sa sunguf ba nga ma joxoon ci kii ba yooyu dafa am mm-hmm. ay ay ay bis yu ñu koy bind mm-hmm. dafa am ubbeeku nag lu am solo surtout bu dee ci mm-hmm. ko am te amantu wuñ ko waaw dañ ko am ñun ndax xam nañ ñun sangatu xaalis fi mu ñu fi mu ñu jële ak fi mu ñu andi waaw fi mu yóbbu ndax am na loo xam ne nit ki di ko def te ñaanul lebut eh, yelwaanut maanaam te duggul ci ab safaan. waaw maanaam te yaa ngi def yoo xamante ni ay. du ndaw waaw tey par exemple rek euh, nan laa ko mën a waxee. Mm-hmm. Euh, kër yi. Mhm, waaw ak euh, oto yi ak yoo mhm. xam ne bëgguma la cat. waaw waaw mais maanaam daal doonoo sëriñ boo xam ne mhm. que da ngay yaakaar li la client bi jox. pour dund. yaa ngi sant te man li may neex mooy. am nga yër ma yërmande ci sa liggéey. am nga ci fulla tamit. nit ki lu man di doon rek. maanaam bu naree ëpp rek nga dem mu dem la. doo dox ci ginnaaw kenn. te kenn du dox ci ginnaaw lu mënul nekk. dèjà man ragal yàlla googu. dama koy dama ciy kontaan daal. te puis tamit boo di ci jël sa temps. ba nga xam ne kon loolu nit ma di doyit faaw nga pare ci la nga nekk jublu ci loolu. maanaam jiitaloo am am bi daal. kon côté boobu dañ ci sant bu baax a baax a baax a baax daal sa liggéey vraiment. di wan ne wóolu nañ la. ñeme nañ la ndax amuñu déception ci yow. xam nga mhm. loolu li tax ñu gën ci sant yàlla. Mhm. mooy li nga wax rek maanaam du ñu bëgg toujours. Mhm. Euh, ne nit ki nàngam ba def ab safaan. ba def ab safaan. ndax li ko waral mooy xaalis waxtu wu ñu ko bëggee ñun. am ko. maanaam tey am na seru yu ñu suñu boroom may yoo xam tey suñu ko bindoon. Mhm. maanaam bu ñu ko bindoon tey rek mën na ci seere tey. tey rek def naa ci benn nga xam ne maanaam boo bindee. Mhm. war a boo bindee pare sangu ko soo ko wirdee xaaj ñëw. léeg boo bindee bala ngaa sangu xaaj bi ñëw. yàlla mi amul ko ma xam tey rek def naa nga xam ne bind rek. waaw xam nga loolu mag ñi dañ ko tere waaw xam loolu mag ñi ah. dañuy bañ nit ki dëkk ci ah, ndax dafa am lu koy indi Mm-hmm. maam dañu bañ nga dëkk ci. nga dama bëgg wax ne la xam-xam bu wér boo ko yoree. Mm-hmm. doo sonn ci côté xaalis. doo sonn ci xaalis waaw moo tax wàllu xaalis ci suñu ñaan. Mm-hmm. jiite luñ ko donte nag nit ki ñëw. maam ñu sartante ak moom. ngir ñu mën a dugg ci mbiram. xam nga am na baat bu am solo booy faral di wax boo xam ne nit ñi dañu bàyyi xel. muy bàyyi di di tubaab tubaab lu ba nga xam ba gaa yi jekku la. nga xam ne booy ñëw ci sëriñ. waaw doo jariñ sëriñ bi. doo ko mënal moom du la mënal yow la bëggee jariñ la nga war def ci sarax la nga ko war jox mënoo ko mun ba mun laa jëriñ moom itam mënoo koo jox loo ko mën a jëriñ loolu am sax loolu waaw loolu dañ ci bari ay ay ay ay mbir yoo xam ne ñoo gis koo xam day ñëw ne la man musuma gëm wàllu ñaan mhm. ba fii laa nekkoon amoon naa nangam amoon naa nangam ba ñàkk ko maanaam amaat am dara ba ñàkk ko amaat ko lu jafe ci àddina moo tax li nga am dangay ngay mm. fexe ba doo ko ñàkk soo amee tur mm. xel ba sa tur boobu doo ko ñàkk loolu am na mm. dañ koy liggéey nga xam ne kii siiw maanaam turam du fay xam nga fii gis nga fi Sénégal ay artistes yoo xam ne màgget nañ ba jeexal mais ba tey jii dañuy tudd seen i tur nga gis ay xale yoo xam ne ay xale lañ mais mm. kenn tuddatu leen maanaam loolu xam-xam la mm-hmm. maanaam xam-xam la dafa am mm. maanaam ñoo xam ne ci li ñu nekk mën nañ ko bañ a maîtriser mais am na lu leen téye nga gis ñoo xam ne seen côté am am nga gis ñoo xam ne ba ci liggéeyukaay yi day mm. gis koo xam ne ku man mécc ma la gis koo xam ne du ko man sax mais mooy ne ci kaw. mooy nekk ci kaw maanaam dafa am loo xam ne xam-xam la. Mm-hmm. moo tax ci lépp looy nekk xoolal ka ci am xam-xam. Mm-hmm. te am ci man-man te nga wir ne la kii dana ci dem ba mu jeex. Mm-hmm. su ko defee nag nga dénk ko sa bopp ci wàllu woowa. su defee nag lam ca def ko rek. léegi jigéen bu am jëkkër nag jëkkër bi yor ba mu xam ko jox soit tubaab tubaab bi nag naa la wutal oto. di fàtte fàtte wala kii ne ko naa la defal lii maam jigéen bu am jëkkër boo xam ne ko yor na te dafa nay kooku loo ci man mooy ñu ko jox. xam-xam boobu tamit mag ñi ñoo ko fi bàyyi. moom lañ daan tudde wodduwaale wodduwaale daan dégg ñu naan diw de dañ ko hmm. loo xam ko wax mu def ko loolu ko def wax mu def euh, wodduwaale jigéen ñi sol tubéy nag nu muy demee booba waaw maanaam loolu misaal la ah, misaal la naan dañ ko takk ci kii bi daal dañ ko takk ci siram hmm. euh, loolu am na maanaam gis nga man ci wàllu tasxiir hmm. tasxiir nit maanaam noob kooku dama ko man bu baax dañ ci wóolu sa bopp bu wér kon ku ni waaj a ni mën nga fexe du dem. bu ko maanaam li ma ko jox su ko maanaam bu ñëwoon ma jox ko dara. mu fexe ba jëkkër ji naan ci. wala jabar ji naan ci. wala jabar ji ne ko damay tas. Hmm. maam mu fexe ba dugg ci gimiñam. jeex na. Hmm? maanaam jeex na. bu eh. fekkente ne dafa wax maanaam da maanaam bu fekkente ne dana dama koy fase wala mu ne eh, mu ne ko may ma baat mu woo ma wax ma ko hmm. su ma ko defalee la may def taal ko foofu ci sama biir kër ah. defar la may def pare foofu lay yem fan yi am naa ci benn kii ci mois bi jàll de nga xam ne jëkkër dama lay dama lay wàcce ah. ma ko du la wàcc de mu ne ma vingt heures la ma wax vingt heures ba vingt du ko wàcci maanaam xam-xam la dafa am yoo xam ne ah. maanaam xam la du ay pexe xam-xam la maanaam xam-xam moom du ay pexe mm. maanaam toujours mbir boo ca nekkee mm. maanaam da ngay fexe toujours nga di ca def lu leer naññ su ko defee nag waaw ji nga xam ne boroom këram maanaam maanaam dafa nay ci moom nga xam du ko jox dara mm. am nañ loo xam ne suñ ko ko defalee incha allah da koy jox te da koy jublu da beneen ba it mooy am nañ ci wàllu noob yoo xam ne mhm. mën naa bañ a dem ci lekk mën naa bañ a dem ci naan ah. am na ci yoo xam ne nag day dem ci lekk am ci naan mhm. am na ci yoo xam ne nag bu ñuy jaamu yàlla ci wàllu jote ah. ci lay dem ah, façon yooyu yëpp dañ ko dañ ko am mhm. fi mu ne am naa sax jigéen ñoo xam ne fi mu ne léegi maanaam dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy euh, kii seen borom kër Mhm. waaye loolu xam nga jigéen dafa xaw a bari pexe waaw dafa xaw a bari léeg-léeg nga gis koo xam danaan la sama borom kër du ma jox te borom këram kër ma ngi koy jox la mu man boo fukk ma ngi koy jox juróom ya mm. waaye day bëgg mu jox ko fukk yëpp wala mu jàpp ne borom këram kër mm-hmm. fukk yi mu ko wax nekk moom la am am na am na am na vingt am na ñaar fukk mm-hmm. léegi na loolu dafay indi problème moo tax léeg yu baree bari ci côté boobu mm. dañ koy segg mm-hmm. mbaa ñooy la may ñu tuuti dal di koy xoolaat ba xam li ngay wax ni est-ce que mooy li am wala déet su boobaa mais ci ëpp ci fànn boobu duñ topp waxu nit ki rek am na ñoo xam ne li ñuy wax rek nga gëm xam ne kii li ñuy wax moom dëgg léegi jigéen ñi nga xam ne tamit seen jëkkër dañ leen a bàyyee njaboot gi yëpp seetaan leen mm-hmm. euh, daanaka ñoom ñooy def lépp te buñ sañ jëkkër ji def dara mm-hmm. kooku nga tas xir ko ba jëkkër ji di jublu ci njaboot gi moom tal ko war nga ci dara loolu ci lu wér alxuraan moo ko wax mm-hmm. gis nga te loolu lépp maa ngi ko def ci alxuraan kat. am na sax yu may defee ci sunguf ak yeneen garab. waaye ci alxuraan moom am naa ci ay yoon yoo xam ne. xam naa nag alquran ji gaaw ci man xam naa li ma koy jàng ak li may liggéey tur yàlla waaye war na sax naa maa fi suduru min xilin ixwaana ala surati mutaxaabilin hmm. boobu am naa ci ay yoon yoo xam ne ci côté boobu hmm. maanaam li ma ci li ma ciy réparé moom hmm. euh, maanaam bu la ci yàlla fay rek maanaam doy na jaamu yàlla maanaam ci ñoo xam ne dañuy abandonné seen njaboot Mm-hmm. du ñu leen defal dara wala rek dépasse la ñu warloo ak ñoom waxtu uh-huh. léegi ku bëgg bac ak BFM mm-hmm. euh, ak concours mm-hmm. magistrat ENAM gendarme pour am ci ndam kooku année bële jàll bari woon nañ ci ay ndam lool muy wàllu examen nga xam ni ki nga xam ne day def examen bac wala ci wàllu euh, concours douane euh, wala gendarme xeet yooyu yëpp yooyu yëpp am nañ loolu xëccoo la waaw yooyu xëccoo la am na sax benn concours bu jofe buy faral di am ci àddina bi di faral di am fii. Mm. boobu dañ ci am ay ay yu bëree bëri yoo xam ne. Mm. dañ leen ci jàppale suñu borom di leen ci defal ndam. yooyu suñu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax may bu ñu ci may. kaaraange rek moom dara fu ko neex dugg. waaw loolu de moom xam naa ne bu waxtu wi xatutoon. lu yaatu lañ ci jël. Mm. waaye nag euh, bu yoon jeex waax su lu jeex. waaw benn yoon dañu ñëw lu am solo la. loo xam ne kenn waru ko sàggane ndax nit ki bu manee toujours muy xëy di dem. Mm. ak a dikk euh, di nekk ci jàmm. fi jamono bi toll nii te dara gër ku na xam ne kaaraange mu ngi ci suñu yaay Aysa radiyallaahu anha nekkoon soxna si yonantu bi ku bari xam-xam nga xam ne yonantu bi xool ba mu yàgg mu ne xusoo nisfa diinikum min haadihi umayra mm. seen génn wàllu diine mën ngeen koo ci soxna su xees si mm. yaa Aysa daf daan di takk di takk moom daan takk daawul xëy te deful kaaraange nee na yonantu bi digal na ma bu ma xëyee naa musu ci kaaraange kaaraange nag ni mel mooy nit ki da nga gis koo xam danaan man du ma def kenn dara jur def kaaraange xam nga nu mu mel. mi ngi mel ne mbedd mi yépp di indoon na rek bu tawee. am koo xam ne dafa xam loolu daal di dem wuti sëkk buntu këram ba mu kawee. protéger këram. léegi bu ndox mi ñëwaatee léegi xam nga da koy romb. ca kee la jëm. loolu moo waral leen nga gis mbooloo nekk. Mm-hmm. jiyee ñëw. Mm-hmm. maanaam dara ñëw bu ñëwee rek dal ci kenn ka. maanaam kaaraange lu solo la. lu waaye ñàkk a ñàkk ñaan war ngaa ñaan lu lay musal di musal sa njaboot. di musal sa njaboot. Mm-hmm. ah euh, kooku mooy fay wax mën nañ ko ci façon yu bari. yu bari yu sax lañ ci man mën nañ ko ci yoonu alquran. mën nañ ko ci wàllu garab. mën nañ ko ci wàllu taal. mën nañ ko ci nit defal ko nit à distance. yoo xam ne ñoo koy defal suñu bopp. kooku mooy soo waaw fay ko. am na wax yoo xam ne nag tey buñ demoon ba bind ko ci yi ba ñëpp jël ko. mën nañ koo fay. loolu ci àll lañ koy defee boo xam ne foo xam ne kenn du fa dëkk. macha allah mm-hmm. léegi kuy lijjanti kayit soit mu nekk bitim réew wala Sénégal. Mm-hmm. wala kayit yi mu lijjanti laal permis laal uh, ay nationalité ay yooyu. Mm-hmm. mën nga ci fexe mu am ci ndam koo xam day déposé rek ñu fàtte ko fa. léegi loolu ñaar képp laa koy réglé. wàllu kurus ak sarax. kurus ak sarax. waaw kooku moom maanaam léegi dama cee bàyyi sax di bind di di ko ci jox kooku moom ku ci ñëw ñu réglé la ko ci wàllu kurus. wàllu kurus ak sarax incha allah. moo xam kayit boo amoon la mu jafe isaay ni dayam kay bu walee renouveler mu jafe nga gis koo xam ne mënu koo am nga gis koo xam ne mësu koo am nga gis koo xam ne da ko daan yomb mu jafe ko yooyu yëpp bu koy xool buñ ko xasee xool xam fi ñu jaar rek mën nañ ko ko régler ci a dafa jëm ci ubbeeku ak njëriñal jaaro bon ko waxaat lan la sa jaaro bi waaw jaaro bi ci kaaraange kaaraange maanaam dina aar nit nit ki bu ko yoree hmm. dafay aaru ci lépp fu mën a nekk hmm. day aaru ci lépp luy gàllankoor ak jafe-jafe te da koy ubbi ci wàllu wërsëg yëpp ku ko takk da ci mucc maanaam amul kenn ku koy takk Mhm. maanaam bés bi nga ko takk ba mu dellusiwaat déwén te amu ak yokk ba nit ñi xam ne maanaam amu ak yokk ba nit ñi xam ne yow am nga ak yokkute ak mhm. yokkute la gu gu jaatu sax mhm. jaare bi dañ koy liggéeyal góor dañ koy liggéeyal jigéen xale rek lañ ko dul liggéeyal jaarlo boo xam ne wàllu kaaraange la wàllu bayre yëkkati ko ci wàllu wërsëg boo doon xëccoo dara da ko jot bu ñu la doon jox lekk goo xam dafa safaanu moo xam tooke la wala wàllu gàllaaje ci ne suñu borom dana la ci musal te da musal ci wàllu cat bu dee lam bi moom bu dee jigéen kaaraange lañ ko ciy defal bu dee góor bayre bu dee seet bi tamit bayre lay doon mais mm-hmm. ngi nekku ci kaaraange waaw mm-hmm. góor ñi nga xam ne que tey euh, mënuñu yem bu ñu takkoon jaaro boobu nekk bitim réew mm-hmm. léeg-léeg soit ndaw sax parce yu am solo ci saahir léegi ko bëgg ñàkk ba léegi dinañ wàcc yoon uh-huh. bu ñu dem dañuy fekk jaaro bàyyi kër ga wala ñu yóbbaale loolu wax naa ko ay yoon maanaam jaaro ba maanaam takk ko jote ak jigéen benn yoon yàqu ko. yàqu wala ñaar. waaye nag ku koy def lu bari. lu bari da koy yàq. da koy yàq waaw yàq parce que ay mm. tur yàlla lañ koy liggéey. Mm. bari nag ay façon yu ñu ci am. yoo xam ne moom lañ liggéey waaye xam nañ daal bi nga xam ne ko ci moom lañ liggéey góor kooku eh, waaw yooyu moom wàllum góor moom dañ ci maanaam maanaam kooku suñu yëf la dañ ko man dañ ci am yoo xam dañ ci sonn sax hmm. maanaam ci defal ko ni ñu sonn traitement bu wóor wóor wóor lañ ci am boo xam ne hmm. maanaam kuñ ko jox da nga gis ne am na luñ la jox Mhm. beneen ba mooy wàllu cuuraay bi moom nit ñi miin nañ ko waaw waaw pour rab la wàllu shayatin kuy tëdd bu guddi doo nelaw wala ngay tiit wala ngay jaxasoo fit bi dëlut mhm. wala foo xam ne wóoloo woo fa ne am na lu fa nekk su bu baax nga taal ko fa mhm. cuuraay la bu baax a baax lool nag te jafee am lool maanaam moo waxee jafe am na mooy liggéey bi waaye kenn ku ci nekk mën nga ci am ci li fi nekk mën nga ci am allah am na ci bàyyi tegtal boutique uh-huh. euh, bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. kon waaw xam naa émission bi moo kii liñ bëgg a wax liñ bëggoon wax du ci xaj mm-hmm. waaye dinañ ñëwaat ci beneen jotaay incha allah rabbi yaatal ci lu baree bari incha allah euh, ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp mm-hmm. xam naa li ñuy wax rek mooy ñi nga xam ne ñu ngi bàyyi xel daal euh, émission bi ñi nga xam ne ñi ngi euh, bëgg di ñaanlu mm-hmm. bëgg seeni mbir di yokk mm-hmm. maanaam mbir mi nañ koy teg fa mu war a tege mm-hmm. maanaam dafa am loo xam ne nit ki ngay jëflanteel maanaam xoolal di jaadu nga di ko jëflante ak moom xoolal lu jaadu nga di ko ko teg ndax bari na ànd yoo xam ne li ko yàq mooy teg nit ki lu mu mënut baa nga di ko gàntul loo xam ne man nga ko ñi ngi ñaanal tal nag suñu borom kàttanal ko waaw tegtal TV waaw <laughs> waaw incha waaw di ñaxtu di xultu mm. di xool heure ba par cinq minutes fàttewaat na heure bi xoolaat kii parce que sama kii insha allah say xallaa bay raxu siri usran yàlla nee na lépp lu xaw a jafe mbaa lu metti teg naa ci kanam lu koy yombal lu gën a baax mm. te fa inna maal usri usran inna maal mm. usri usran

ñu ngi koy sant bu baax di koo gërëm ci taxawaay bi rafet na lool di ñaanal suñuy wayjur suñu wayjur wu góor mm. Mm. ak suñu wayjur wu jigéen mm. suñu borom yàggal leen fi ndax lépp ñoom la ma koy wax toujours ne suñu jàng alquran suñu wayjur wu góor moo def lépp eh, ba dugal ñu jàng xam waaye bu ma saxee ci xam-xam nag sama wayjur wu jigéen moo ma ci nàmpatal ndax bëgg mu bëgg xam-xam te dal ma ñaax bi may xale manaam di ma neexal pour ma sonn ci loolu nag toujours dama ci joxe benn leçon di wax ne bari na doom joo xam ne way juróom góor li mu amul ci moom yaay jaa ko ca jàppale wut mm-hmm. waaye way jur wu jigéen waxtu wu jógee ngir jàppale way juróom góor ci doomam rek lam ca bëgg mën na ko am maa ngi leen di ñaanal di ñaanal ki nga xam ne mooma abiye euh, yére bi di mambayloo mm-hmm. Baye Fall mm-hmm. taalibe suñ Fallou Fall moom suñ Moudou Aminta moom itam di ñëw yu baax nga xam ne da koy joxe ni ñu nekk fii euh, Géejawaay moom itam di jàmbaar Euh, nekk koo xam ne daal Baye Fall piir la. macha euh, waaw waaw Cheikh Cheikh Cheikh Tayer moom itam. Cheikh Tayer mm-hmm. euh, ku baax. maa ngi koy ziar di ziar tamit Baye Serigne Fall moom it damay faral di ñawal. Mm-hmm. sëñ Dame Ndiaye Touba Mariana sëñ mm-hmm. Ahmadou Fall di sama xarit. xarit moom itam taawam sax mën la ko tuddee. ñu yàgg bi ñuy xale. sëñ Moudou Dieng Diop Omar Mbuub ñoo ñëpp ay teer lañ nekk ay nit ñu baax di ñëw ay yëyu rafet di ma jox sëñ dañ Diouf mhm. maa ngi leen di sant ñoom ñëpp di leen gërëm insha allahu rabbi jërëjëf ah, di ñaanal ki ma jox weer ji rafet yi di soxna Seynabou Gaye moom itam ku baax la moom ma andil weer yi moom maa ngi koy sant di ko gërëm insha allah paquet yi dul jeex ko bu baax dina yokk bu baax wallaay bëgg naa mu raw tubaab yu bëri. incha allah xarit la hmm. Mamadou Sow Allemagne euh, nga ko ma koy ñaanal ku baax la euh, Mamadou Sow Allemagne. Hmm. nga gërëm nañ tamit Jeynaba Jabaate Allemagne mami d'enfant France mami hmm. d'enfant. ñu ngi koy ñaanal Fanta yàlla na ko yàlla xaar àjjana. wax dëgg yàlla ak Iso ñu ngi lay nuyu. mami d'enfant gërëm nañ ko bu baax ak mère Jeynaba Seydi euh, vraiment Fatou Sila Oumou Sila gërëm nañ leen bu baax a baax a baax. gërëm nañ Nasi la Linguère Nasi Dieye France. bëgg Tektal TV bu baax a baax a baax gërëm Malick jiite Grèce bëgg Tektal TV euh, Fat Diop Amérique bëgg Tektal TV euh, ma Mouhamed Ndiaye agent joueur ak Marga ak Patricia ak Soxna Diarra ak waa kër ga fan doon lekk pizza ba euh, gërëm nañ leen bu baax a baax Mouhamed Ndiaye agent joueur nga gaaw yor ay joueur Real ak yépp bu baax a baax a baax a baax kan lañ fàtte ma xool gërëm na ñi bëgg Tektal TV ak ñi wax ñu abonné ak kan na wat waaye oh la la ñi bëgg Tektal ñi xër yi di wax gars yi ñuy abonné di ko yónnee Mohamed Ndiaye daal moo ci nekk ci kaw bu baax a baax Sayer Fall Espagne borom Galicia gërëm nañ ko bu baax a baax a baax bëgg Tektal TV bu loolu weesoo gërëm nañ tamit équipe technique bi ñu àndal balaa boobu numéro bi 77 750 22 60 77 750 22 60 beneen bi 76 396 53 81 76 396 53 81 gërëm nañ tamit Matar Soare xaritu Ousseynou Ly Matar Sawre borom Cambérène fële ci Allemagne Cologne gërëm nañ tamit Abdou Khadir Diop basketteur Qatar moom a abiyee ci kaw ba ci suuf lépp euh, gërëm nañ tamit Abdou Khadir jóob magu Adja Diop ak Mohamed bu mag ak euh, jiite ak maire magu kan gërëm nañ ko bu baax ak jaara patriote Cheikhouna Diaw boroom këru ku bees ki ki muy waxal téléphone ba fàtt ñu fii gërëm nañ ko petit sow gërëm nañ ko moom ak Rahma Ndiaye ak ñaareelam bi dëkk côté Escadrille Bab <laughs> kooku muy waxtaanal Bamba Samb Diop Maya ak ki nga xam ne que moom lay kii mayaa dem doon wuy téléphone euh, xam naa mayaa du xam mooy ki sant ba rek ah. comprendre waaw xawa ay Asia Maymuna Géy ak dankum dankum la yaayam dankum jubal jànkum mooy yaayu mayaa jubal jànkum ak tata Marie ak keneen yaay ji boppam keneen ki Marie ah. ak France ver Verneuil Verneuil ca France kon mayaa moom wax dëgg yàlla ngan gi neex na bul demagul yaa ngi ñu topp topp baax a baax ganu ganu Ndefleng la tudd ganu petit bi ah nu mu tudd. ganu Ndefleng. ganu Ndefleng ah. ganu Ndefleng. Philippe Ndefleng dafa amul ak ganu Ndefleng anglais noo tudd c'est comment. ah Girma Girma gërëm nañ Girma ban nationalité la. Éthiopien garna Éthiopien Éthiopie ok jabar Ousseynou li moom Érythrée la dëkk ah. Éthiopie Éthiopie moom Guiré la. Soxna May ak Soxna gërëm nañ ko bu baax a baax a baax. Euh, ak suñ ñaareel bi nekk ci côté. <coughs> planète planète Mars ah. ah planète Mars. gërëm nañ ko soxna May Diop soxna Zeynab Diop sëñ Fallou Mbacke Diop ak bébé Mouhamed Diop soxna Fatou Diakhaté Nijaay Cheikh Diakhaté Dame Diop ak maam Diakhaté Tektal TV télé toll ko fii xéwal di ak sa doom bu kii bi nu mu tuddati. maam xarit Lo maam xarit Lo soxna waaw soxna Lo. maam xarit moom su doom bi ñoom maase. waaw waaw maam xarit gisoo <laughs> kii moom maa la tax maa la may dédicace. incha allah Karim Mbacke ak sëñ Amadou Rafaay Mbacke. yaa ngi fi loolu xew dëkk la nga dëkk ñu ngeen ñaanal abonné Tektal TV ñu am. 1 million abonné bu allah ak waa diaspora jërëjëf xew dëkk la nga dëkk jërëjëf.